xam nga ne nag Fatou di nekk ci dëkk bi ñuy ndéwénal te duñ egsi si këram. dëgg nuyu naa la. kontaan ci yéen bu baax a baax di leen dalal fii suma kër. ah kontaan ci yéen bu baax si liggéey bi ngeen a def. Gambia Radio am taxawaay bi taxaw si réew mi di yëgle di yëte te di wonal ñuy seen liggéey. kon kontaan nañ ci Pa ak bi di leen dalal fii suma kër. waaw li ñu la wax ne kontaan nañ ci yow ya tamit di la wax ne Thank you very much, uh, Dylan. Uh, wish the same. di nuyu sun fancy at sun support supporters nga hamne. Nyom ñoom la ñuy liggéeyal ak uh, jàpp nga hamne lo loolu lañ jàpp si Kër Fatou ak so also si company bi uh, di wax uh, Gambie yep happy yep. di nuyu yep na di nuyu suma xarit yi surtout ñi nga hamne ne ñu ngi seetaan right now ñu ngi Angleterre ku mel ni Adou Adama Ndiaye suma xarit suma doomi ndey mel ni Kacam Fall chéri oncle ah di nuyu suma doom day tam Awa Ndiaye di nuyu suma rakk yi nekk Amérique ak Angleterre di wax ñëpp daal happy it to every Gambian di kontaan si ñoom. foofoo neex. waaw mhm. sa julli baax xam ne bokk man nag julli nag ah meluma ci noonu bu seetloo suma yaay ñoo julli si tey ah suma yaay Jéy ak suma yaay Hawa ak suma maam moom mooy suma xarit maam moo fi dëkk ak xale yi ak suma doom siri ak xale yëpp dama am de ceeb rek laa bëgg soo togga nañ ceeb bu neex ah, ceeb bu weex ah muy suweer ankay waaw loolu ah gis nga waaw Fatou si sant yàlla bu baax euh, boo ko seetee man ku mel ni man euh, maa ngi génn for the past three and a half years almost julli si dëkk si dëkk bi kontaan lu gën a neex si dëkk bi mooy euh, kenn ragalatu dangaa dawal sa oto kenn xalaatuloo ne nit ak may seet si gannaaw ngaa baa ngi free soo loolu rek doy na di sant yàlla nag di ñaan rek jàmm ji sax di ñaan suñ kilifa yàlla yàggal leen fii xam nga Euh, nguur gi tam yàlla gën a teete Gambien yëpp mun a gis seen bopp si géej géej géej gi am um, defe naa li jullit moom neex na macha allah. jullit na bu baax ci laajte bi mhm. euh, xam nga nit boo génnee euh, nga ñib euh, war ngaa def loolu nit ñi war a gis sa présence mhm. demoon bi métti woon na waaye bu ñibbisee ñu xam ne amatuñ caaxaan réew mi soxla na ñu liggéeyee réew mi soxla na ñu dimbale Kër Fatou dafa jublu pour informer Gambia ba pare tam pour xiir Gambia bi na foo xam ne am na ñoo xam ne xaajal bi séparation bi bari na xëccoo wante bi bari na waaye Kër Fatou buñ ko xalaatee dañ ne dañ bëgg programme boo xam ne ñëpp dinañ si gis seen bopp ñu muy musicien bi man su ma bàyyi xel man sa musique laay liggéey bu bari maa entertain laay def bu di samedi Kër Fatou ak Gambian showbiz bi 2STV mm-hmm. waaye li ma ñëwee ma ne ah, mën nañoo boole yëpp def ko si benn programme suñu eewoo wax ak politicien bi ñu wax ñu lu tax ñu def lii ak lii ak lii Gambien bi jàng si waaye bu ñu eewoo musicien bi bu amee soxla mu ñu oo ko waxamoon kër gi moo tax defuñ ko si studio ñu def ko si kër kër format nga xam ne ñëpp dinañ si gis yow soo nekkee sa kër mm-hmm. lu xew si dëkk bi keroog loolu ngaa waxtaane sa kër mm-hmm. kon kër Fatou war na mën a nekk pour askan bi yëpp moo tax ñu indi idée liggéey si nag ak ñu xarañ ku mel ni Dadi Ndiaye mm-hmm. ndaw ba ndaw boo xam ne la Gambie nii bugg nañ ko soppane ko te moom dafa liggéey rek pour Gambia kooku soo ko indee mu wax a Gambien yi mun na am Gambien yu bëri nañ gis seen bopp si moom bu ni Oly Fall xale boo xam ne seet na loxo mën nañoo liggéey mu ndaw loolu moo tax loolu si jubli waaye tey boo leen seetaanee si programme Toubaski Special di ngeen gis ne indi ay ndaanaan ay géwël xalam ay xam nga lépp la boole si Kër Fatou ñii sax dinañ leen invité bi li ñoo def xam nga so loolu lañ ci jublu ñu jublu ci loolu bu nga gàmmee ni gis seen boobu si Kër Fatou loolu moo tax Kër faatu ñëw waaye nag Kër Fatou macha allah kontaan nañ si réaction bi mu gis ci Gambien yi te um, yaakaar naa ne bu baax a baax si kanam tuuti rek Gambien yi dinañ xam lan moo tax Pire Fatou uh, taxaw te di gërëm bu baax nag suñu sponsor yi dama ko dee wax uh, Gambien market bi ndaw na lool pour nga am programme mu génnaagu sax nga am eight to nine sponsors loolu yombul kon ñun ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu partenaires yi ak suñu sponsors si di leen wax ne rek Pire Fatou moom ngeen doo leen wax dara Gambien yi daal dañ wax dara si kanam daal dinañ waaw yéen a ngi si yéen am Kër Fatou. waaw Kër Fatou nag daf day ñëw every Thursday um, at 9 o'clock on GRTS. waaye comme julli la suñu amee special programmes dañ dee def ñu indi ay artistes indi ay ndaanaan waxtaan na ñoom comme ñu wees lu jotee dinañ def loolu. Mm-hmm. so moo tax tey di nga gis ne dinañ am programme bu ñoo def waaye bu dul loolu normally Kër Fatou Thursdays la ñuy ñëw every Thursday at 9 o'clock. waaw lan euh, dina ma neex lool xam nga man. su ma toogee ku tudd Fatou. damay kontaan sawar lool kontaan ak borom. Mm. Euh, ñu fekk fi nag ay nit ñi nga xam ne ci kër bi la bokk. Ah, euh, ah. kenn koo mm-hmm. ko lool. Ah. Euh, Fatou ñu ko xam ne mm-hmm. maamam a ko yar. lu mm-hmm. ñu dégg lu ñu jot a tey bëgg na lool maamam. ñu gis fi meer meer nag moom dafa sant. ñu <laughs> ne asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naka nga ci jawaral bi jawar. déglu sa wala déglu olof ok kon nag ram bu demoon ak meer. waaw lii la yàlla dogal xam nga ñun nag wax nañ leen ne ñun Gambien leen fu ne rek la ñuy génnee meer bi nag di jàkkaarloog moom rek nga nuyu ko meeroo ngay kontoon. ngay jóg alamaam naa bee la jaar. mii naa mii naa mii Mm-hmm. selalu मारे जा सलोदियात si सिमुदे Oke, ya belum selalu kita mau kata balik kontrol. Ah. Ini yang apa? Dengan kontrol. Ini ah. kita lejang. Kita yang kita lemah mau ke anu. Nah mau ah. itu kita laku. Itu menurut sekolah itu. Kita di kontrol kita dua lagi. Kok karena kesini mati, sinati. Mm-hmm. Ani kayak maaya tey waaw jërëjëf Ramo dina neex lool maam dafa nekk loo xam ne ku ko gis rek da kontaan kon ñun ñoo sopp suñu maam maam booy ñaanal ko waaye tamit fekk fi yeneen yaay bugg laaj yaay bi yaay naka nga def noo tudda. maa ngi Euh, bëggoon na xam rek euh, kan mooy Fatou Touré ñu ne diw su ne baax na ndax moo ko yaa ko wax wax ñu kan mooy Fatou Touré. loolu a tontu ndax Fatou doom boo xam ne la mënuñoo wax lu bari si moom ndax suñ buggee woon suñu mbir dañoo fees Fatou taxaw na doomu yaay palaas yi yaay taxaw na palaas yi papa taxaw na palaas yi fu nekk taxaw moom ñun daal suñu yaay muy papa muy jabar muy yëpp suñu papa suñu yaay la ndax man moom ñu gees ni jabari papaam la waaye dangaa ko demoon naa ko toppatoo na ma faale na ma respect na respect boo xam ne rus naa ko sax dama ko jurus sax ndar cër bi ma jox kon ñu koo ñaanal li bugg a yàlla moom moo ko xam yan na ko yàlla may li mu a place bu nekk nii ko yàlla may ko wërsëg bu bëree bëri bëri bëri bëri Fatou xol bi yaru na Fatou nekk na njaboot boo xam ne boot na ñëpp uuf na ñëpp. jaral ko ci bu baax sax. ñu ko ñaanal da kontaan naa olof bi na sëtul. waaw waaye nag la bu sëb. yaroo baax yaroo baax yaroo baax. waaw kontaan rek yéen moom da ngeen fi def loo xam ne ah mosuma ko def man caméra ah, ñëwee ñu ma ku may <laughs> interview mooy suma liggéey waaye nag defal ngeen loo xam ne mooy suma lépp mooy sama mooy mooy sama alaxira mooy sama yaay tey kon ah, pour ngeen am ko si caméra bi defe na ni mel ni ba waaye kontaan naa bu baax di sant yàlla di ko ñaanal yal na ko fi yàlla gën a yàggal suma yaay nag moom moo ko wax dara mu bàyyi yàlla rek ah moom may toppatoo sama papa xam nga kuy toppatoo sa papa nag kooku mooy sa lépp. Ah, may kontaan si ñoom bu baax ak sama yaay bu ndaw suma rakk yaay ñu fi xaw a moom mooy suma yaay suma xarit yaay la balaa bu moo dunda kon man ñoom laa am ah, di leen bu baax suma famille bi suma doom bi si rek di gërëm bu baax a baax nag di kontaan si yéen bu baax ah, programme li ma mos a def si àddina li moo ko gënal because um, da ngeen ma wone who I am suma famille sumay mbokk sumay xarit kon kontaan naa di leen gërëm di leen sant bu baax kontaan euh, xam nañ ne yow yaay euh, sista Niang yaay. waaw um, time amat. waaye comme ni ma koy waxee Gambian Talents ñun duñ bari ay janax mm. janax yi nag si pax bu ne la ñuy dugga mm-hmm. te pax boo nekk euh, pax bu am mm-hmm. amut kibeer mm-hmm. kon nag Fatou dafa bul dara ak yow dinañ la seeti si Tambambalu ñu Tambambalu yow ah, meer dinañ ko laaj te yu bëree bari ah, kay Fatou ku baax nga dañuy newee naal ang nagyari na naam. Pansanin lo siyo, mga ambes gamyan talang kakam na ang nais. Ang nais mo na ang nais challenge. Bye-bye, Yugini. Bye-bye, Yugini. comme ni leen ko waxee Gambian Talents ñun saa su ne rek dañuy dem si suñu ay ndaanaan di dem ah, seeti ñi nga xam ne nag ñu baax leen Fatou Touré damay wax ne Fatou yi bari neen Gambia waaye Fatou bu mel ni moom ah soo ma amutee rek amuloo ko amuloo ko <laughs> ah, kon nag Fatou bi tubaab kàllaama inchallah ah, di nuyu ñam Njaay di nuyu Fall nga xam ne moom nga di nekkal si mm-hmm. programme bi yéen a ngi def lu nice mm-hmm. Gambie ni bugg li ngeen naa def yaatal nga sa kanam xale yi xale yi bëgg nañ lool si yow programe bi nag dafa am ñu ñu jàppale. li nga xam ne ñooy yaay yi ah, ñu leen ñu nee naa jaajëfal bu baax a baax. yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan si diaspora bi saay boo leen bëggee yónnee xaalis euh, toppaleen yaay euh, instant service limited su ko defee ñu gën leen a jàppale gàmm yéen nañu supportante amul foofu noonu waaw ba léegi rek Fatou maanaa bitik tamit mu cekkoon a wax ñu ko fàtte ñu ne xam nga nu ma leen ko dee rek fii ci mbir bu nekkee ndey jaay sa mbagg ya te Gambia bi nga am ku laa dimbale rek war nga ko delloo njëkkal saa yu ne. waaw jërëjëf ba léegi ñu déglu si sën bi. maanaam da ngeen si night club pour Sénégal bi yëpp boo leen bëggee rek dem si programme bi ba ni ngeen ko bëggee. waaw loolu la nekk place yi xale xale yi même te nelaw abal mag ñi nag ñu xàppi Gambia happiness la Fatou wax. bye bye. waaw kontaan naa merci merci beaucoup